dañ ci war a bàyyi xel c'est important donc day ñëwaat rek ci chauffeur yi ndax même suñu réglé ci chauffeur yooyu maal nga baal ma ci chauffeur yi la ñuy dem ak ki nga xam ne moom mooy moniteur auto école président amical des moniteurs et employés d'auto école di Mansour Gueye mi ñu doon xaarane ni ki moom moo nekk au bout du fil bu ko mënee jël Mansour très rapidement mu sànnu ci ay kàddoom moom itam Mansour ñu ngi lay nuyu waaye maa ngi leen di soxna si maa ngi leen di leen jaare très bien di la remercier ci disponibilité ñu bàyyi la ak Mal par rapport ak jëye ji nga xam ne moom moo fi jot a xewani ni kiy démb euh, ñu ci bëri jàpp ne xëy na anam bi nga xam ne noonu lañuy ñuy amee permis de conduire yi bokk na ci li waxal accident yi bëri ci Sénégal ak yenn comportement yi. waaw d'accord soxna si damay tàmbali d'abord di wax ni nekkatuma président amical auto école yi may mhm. j'ai été remplacé. ok beneen bi may jaale ñi nga xamante ni ñëpp ñàkk nañ seen bakkan ci accident bu metti bi mhm. di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ci blessé suñu borom saafara leen ñu delluwaat seen activité mhm. waaw léegi nag bu ñu wax par rapport ak euh, le titre permis de conduire bi damay jàpp ni gars yi des fois dañuy juum ndax le rôle de l'auto-école c'est pas de délivrer le permis mais plutôt de faire la formation Mhm. pour le permis c'est des agents de l'État qui apprécient. Mhm. pour xam kuñ koy jox ak ku ko warul warul warul am. mais comme on travaille ensemble. mën nañ wax ni ñun mën nañ ci bañ a set. mais auto-école aussi du génne un conducteur parfait. Mhm. dañuy enseigner les bases de la conduite automobile nit ki bu ko yàlla dimbalee mu am permis. mu def conduite accompagnée bu fekkee dafa bëgg def professionalisation nag kooku dafay laaj beneen formation supplémentaire après le permis cas de figure bi buñ ko jëlee mi nga xamante ni mooy les conducteurs professionnels malheureusement loolu mooy manqué par rapport ak catégorie euh, profession profession bi nga bëgg a def mm-hmm. boo fekkee da bëgg dawal bus boo la yàlla dimbalee ba nga am permis transport li la war mooy nga yokk sa formation dans un centre dédié boo demee Dakar dem dikk macha allah wala nga xool waa salaam transport yi wala yenn euh, organisation yi liggéey ci transport yu moderne yi dañuy jël temps seen euh, chauffeurs yi bu ñu leen recruter ba pare yóbbu la ñu def des formations supplémentaires. Mm-hmm. mais foofu ñun mënumaa nangu ñu bëgg incriminer le titre ne permis bi la. très bien mais bu ñu taxawee ci wàllum bu ñu taxawee Momar ci wàllum formation bi. un peu parce que c'est c'est important xëñ na jàpp nañ ni même yéen ñi nga xam ne ni nga ko waxee formation bi ngeen di gérer. pour mm-hmm. pouvoir ba pour ñu jox leen seen permis de conduire am na échange buy dox diggante auto école bi ak ki nga xam ne moom mooy délivrer permis de conduire bi loolu itam loo ciy waaw yooyu c'est des pratiques yoo xamante ni. Mm-hmm. c'est à déplorer. c'est à déplorer man dama koy condamner ah. man mhm. d'accord ma ci loolu. Mhm. quand l'État organise le méritant na génn mu am permis ki nga xamante ne amul mérite nañ ko sanctionner mu dem jàngiwaat bu mérité mu ñëw mu am. Mhm. man lool moom en tant que euh, acteur et j'ai eu à être pendant onze ans à la tête de cette association je n'ai jamais été d'accord pour ces genres de pratiques mais nag du ñëpp koy def. du ñëpp a koy def mi ngi mel ni dans tous les corps de métier. li nga ci gis ñoo xamante ni dañuy wàcc yoon wi. Mhm. ndax am na ay client candidat yoo xam ne bu ñu ñëwee sax boo leen bëggee wax loolu il préfère rester une année wala deux ans di ko ñafe ba keroog ñu koy am de de manière méritoire. d'accord donc loolu moo fi ne. peut-être pour pour pour terminer am na ndaje bu war a am ci kanam conseil interministériel. Euh, lan nga ci séentu lan nga ciy séentu par rapport ak problématique bi di accident de la route yi. non man man moom man moom bon parce que dama teewoon ci conseil interministériel le février 2017 bi avec euh, l'ancien premier ministre Abdou Abdou kii Boun Abdallah Dionne. oui. malheureusement résolution ak mesures yi ñu jëloon yëpp li ëpp âge bi pour permettre aux professionnels. Mhm. ay dindi les tirs de bagages là ak Versailles yi ñuy def ci oto yi interdiction yooyu yëpp gisuma solution am. donc je pense que ni des fois état bi aussi dañu war a éviter di wax sur le plan émotionnel nu jël ay mesures yoo xam ne après duñ ko respecté. Mhm. ñu préfère ñu toog ñu jël seen temps parce que benn après midi mënoo ci génnee dans le jour yi loo xamante ne mën nga ko wéyalee. ñu réfléchir convenablement pour le secteur du transport avec des décisions sérieuses ay mesures rigoureuses réfléchies yoo xam ne mhm. bu ñu ko tegee duñ ci delluwaat ginnaaw. quelle que soit pression bu mu fu mu mënta jóge kenn du ci dellu ginnaaw man mm. loolu laa gën a gëm que dans le show nii rek ñu dajale benn après midi di toog ñu ne génne na mesure pour calmer non non. c'est important loolu ëllëg daf ñuy daf rek. dëgg la Mansour ñu ngi lay jaajafal moom mi nekkoon njiital amicale des moniteurs et employés d'auto-école ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci sa disponibilité merci donc euh, Mal pour jeexal très rapidement dégg mel na ni ñenn ci acteurs yi dañoo dubitatif quand même par rapport ak conseil waaw c'est c'est ça le malheur aussi parce que ñuy organiser parce que neena ci cadre émotionnel lay état di di di di di agir donc euh, je pense que vraiment warul woon demee nii bu ñuy organiser conseil interministériel boo xam ne euh, ñi nga xam ne dañoo bokk ci secteur bi et qu'ils ne sont pas optimistes et ça c'est a déplorer aussi qu'est-ce qui se passe réellement est-ce que nekk na est-ce que tey pour man euh, juumuñu ci seen combat mm-hmm. donc euh, wala peut-être dans la stratégie voilà stratégie bi moom euh, comme sànq nañu gisee xalifa bi di wax tey ñooñu aussi dañ leen war a impliquer ci xeex bi e ça fait deux fois ñuy dégg ay nit yoo xam ne dañoo wax ne amuñu si yaakaar mm-hmm. et je pense que loolu depuis démb maa ngi dégg ay nit yoo xam ne wax nañ ne dañuy jël mesure rek pour calmer les calmer les voilà il ñuy appliquer ñuy sanctionner également. Mhm. gis nga Sénégal Kaja loolu rek moo ko moo moo xaw a euh, naxasal léegi léegi yenn yu mel nii. Mhm. parce que du ñu sanctionner. Mhm. suñu dul sanctionner nag lu mel nii day amaat ndax dafa bëri comme li may wax le triptyque sénégalais c'est le maslaha le graawul le bàyyi bàyyil mu sedd c'est en fait ce sont des trucs yoo xam ne il faut que ñu veiller ci à la limite ñuy sanctionner des gens ku deful yoon ci kaw tali bi ñu sanctionner la. Euh, force de l'ordre yi nga xam ne aussi ñoo am seen liggéey di ko def nuñ ci gën a veiller parce que aussi euh, am na lu bëri lu ñuy dégg ci tali bi xëy na euh, lu ñu war a gën a bàyyi xel la acteurs yi ñoom xam nañu donc je pense que aujourd'hui lu ñu war a gën a bàyyi xel aussi mooy mesures yi nga xam ne dañ koy jël donte ces acteurs la amuñu si yaakaar mhm. parce que loolu aussi mooy malheur bi ndax ñoom ñu ne comme ni ñu wax ay mesures yu ñu jël pour calmer les gens comme ça parce que démb am na 35 morts on a vu le président qui s'est déplacé pour dem Kaffrine xooli situation bi lu mu demee mais je pense qu'aujourd'hui même président euh, euh, bu amee la volonté de vouloir bien faire tey jii nii pour mu régler situation bi benn yoon parce que dafa wax ne ne lii il faut que mu jeex mm-hmm. mais est-ce que tey jii nii ñi nga xam ne ñooy liggéey ak moom ñoo ngi koy dimbali je je prends en l'occurrence le ministre des transports tey liggéeyam lan la war a doon est-ce que tey mu ngi impliqué ñi nga xam ne ñoo bokk ci secteur boobu noonu côté sensibilisation bi même ñi nga xam ne ay artistes lañu on man j'ai vu yoo xam ne ñoo ngi ciy def ay kii di ci woy di toll loolu mooy comme li may wax dootul xeex gouvernement kese xeex tout le monde la képp la yow la man la ak keneen donc je pense que aujourd'hui même le ministère des transports seen rôle ñoom seen wàllu bopp dañoo war xoolaat seen taxawaay ndax ma Faye tamit euh, mu ngi fi bëgg yàgg c'est pas que dama damay dama koy kii mais mu ngi fi bëgg yàgg macha donc yaa ngi fi bëgg yàgg mais accident yi chaque année moom la ñuy gisaat je vis aujourd'hui benn journaux bu ci wax la yem parce que aujourd'hui demain on peut se retrouver ak beneen accident bu gën metti donc je pense que lu am solo mooy que c'est pas des mesures simples yu ñuy jël pour wax ne demain on se retrouve à la presse ñu gars ñu ne non jël nañ ay mesures mais nañu appliquer ngir yàlla nañu appliquer mesures yi ngir mu jeex ndax bakkan dafa cher donc bakkan lu am solo la moom la xalifa bi doon wax léegi mhm. nañ ci bàyyi xel